Bellaan bi nga xam ne euh, noonu la président Macky Sall transformé suñu réew muy Sénégal or dama koy faral di fàttali le projet c'était un peuple un but une fois et non deux peuples deux buts deux fois deux peuples mooy benn peuple boo xam ne lu ko neex def sàcc xaalisu askan bi këpp kees randal rey nit torturer ay nit ba ñu dee sàcc suufu askan bi du mujj fenn président Macky Sall jël concom teg ko ci dossier teg ko ci li nga xam ne moom mooy loosu justice mais boo nekkee un patriote un patriote authentique comme Barthélémy Dias yow mënoo am jàmm say mbokk mënuñu am jàmm say xarit mënuñu am jàmm ngay àndal ci wàllu politique say collaborateur duñu am jàmm donc li xew tey bettuñu je crois que ku yeewu tey Sénégal nga gis Auchan yi tëj ay auto gendarmerie garé fa fii rek ci koñ bi waaw tu as l'impression que gendarme yu nekk Sénégal yëpp ñu ngi autour de la maison ñu ngi ci biir quartier ku yeewu tey ce matin gis réew mi ni mu tëddee ak gendarme yi ni ñu nekkee ci mbedd bi waroon nga comprendre ne li nga xam ne mooy décision bi na doon daal parce que personne n'a fait un appel à la mobilisation lu dul ne député yi nañu ànd ak ki nga xam ne mooy seen naataango monsieur le député maire Barthélémy Dias. Donc on s'attendait un peu à cette décision. Euh, nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes tout de même choqués. Voilà, nous sommes tout de même choqués, comme nous le sommes à chaque fois que nous constatons que le droit n'est pas dit. Comme nous constatons à chaque fois que euh, le président Macky Sall moom mooy manipuler exécutif bëgg manipuler législatif di manipuler euh, le judiciaire loolu nag. mooy combat wu Barthélémy Diaz mooy suñu combat ñun ñëpp nous sommes venus aujourd'hui exprimer toute notre solidarité mais sans réserve totale à notre camarade à notre frère à notre maire à notre député euh, Barthélémy et la lutte va continuer la lutte va continuer parce que bu fekkee dañoo xalaat ne li moo ñu tax a dellu ginnaaw eh bien le président Macky Sall qu'il sache que il est en train de se foutre le doigt dans l'œil mais jusqu'au coude la lutte va continuer Barthélémy Diaz va rester debout, Barthélémy Diaz vaincra. La lutte va continuer, les patriotes vont rester debout, les patriotes vont se battre, les patriotes euh, vaincront. Euh, ça fait dix ans que nous nous battons, ça fait dix que nous, faisons face. Depuis quelques mois, le rapport de force a changé. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons flancher, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons lever le drapeau blanc. La lutte va continuer jusqu'à ce que ce pays la change, ce continent la change, la justice change. Voilà, l'exécutif change, l'Assemblée nationale va changer. Et ça sera par la force, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Donc que tout le monde reste mobilisé. Que tout le monde reste mobilisé.